suñu borom di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal suñu kilifa yi yu fi nekk ñëpp di nuyu ak ak di ni convergence des démocrates pour la sauvegarde de la République muy S24 muy kuréel bu ñu teg ñun ak Sénégal yi yëpp sénégalais yëpp yoo xam ne luy suñu ndono mooy suñu réew lu ñu bokk mooy république loo xam ne ñëpp a ko bokk ak suñu système boo xam ne naka la ñuy choisir ñuy jiite suñu réew ak suñu doxalin mooy lu ñuy tubaab yi di wax système démocratique ñu bëgg a sàmm loolu ñu ñoo taxaw teg ko di wax ni fan yi gis nañu ay euh, jafe-jafe yu bari ci senegal ay yàq-yàq ay gaañ ba mu am ay euh, ñu si faatu di jale jàlle di leen si sen bokul si luñu bok euh di gis même euh, que ay keuru khalifa yu bok si nguur gi ak ñu bokul si nguur gi euh ñing leen di euh be di indi fitna sen njabot yo xamne dara dara ñu si mbir bi sen dom ak sen njabot te suñu réew mu nek réewu jamm réew boo xam ne ñëpp xam nañu ni mooy réew boo xam ne Afrique yëpp monde bi yëpp xam nañ ko bokkuñu ñëpp bokkuñu diine ñëpp bokkuñu aada ñëpp bokkuñu xeet te ñun yëpp ñu ngi jàmm jàmm sante nekk bokk ndey bokk baay te loolu nag suñu gisee mi ngi commencé réer ba nga xamante ni léegi lu am mooy bañante ah, enante Nous, ñu jog ñu ne duñ ko parce que loolu day yàq suñu réew loolu moo ñu ñëw pour suba ñëpp daje place de l'Obélisque place de la nation ak des allées des centenaires Sénégal préparé pour ñëw fa suba si gox Sénégal pour république Sénégal te seen gëm Sénégal bo xamné président de la République moko ko muy Sénégal du progrès et Sénégal du futur lolu mo waral ñu ñëw tay bo xamante euh jot nañu ci ministre de l'intérieur mune jafé jafé yu am Dakar euh, sécurité plus de 500 000 personnes, personnes euh, dina jafé jafé trop dina jafé trop fu mu nek ni ñu concentré aussi lolu Euh, ñu ne ñu munuñu ko mënuñu ko mënuñu ko euh, autoriser ñu nag ñuy ay doomu république ñu nangu ko nangu dogal bi di ne dañuy xaaraat ba beneen beneen beneen fan su jàmm de dellusee ñu mën a organiser loolu pour won sénégalais yi won àdduna bi que sénégalais yuy bëgg a sàmm seen république ah dinañu jaak jaak jaakaarloo ak ñoo xam ne dañu jóg pour yàq république bi yàq suñu démocratie loolu moo waral ñu ñëw tey wax wax ak yéen si mbir bi mbiri actualité bi muy euh, euh, ndogal bu rot si euh, Ousmane Sonko te mu indi fi ay jafe-jafe te mu nekk ndogal boo xam ne day wone que suñu justice bi kenn mënu ko digtal lu muy def euh, dëmb rek soo gisee réaction yi rek muy si parti opposition ak parti pouvoir bi di nga xam ni euh, ku nekk bëggoon na mu nekk la nekk nekk neneen donc loolu mooy waral ni kuy dogal mooy suñu juge yi euh, dañu dogal si loo xam ne loolu la ñuy wax intime conviction te loolu muy wane ni en dernier lieu justice boo xam ne moom la ñu tabax si suñu système démocratique

surtout nag di féliciter euh, force de défence et de l'ordre muy alkaati yi ak takk der yi nga xam ne vraiment seen taxawaay seen taxawaay rafet na trop seen dal euh, euh, seen muñ seen dal vraiment xam nañu ni ci pays yu bëri bëri même pays yu ñuy wax développé développé amul foofu man ñu ngi leen di ñaanal di leen di wax ni ñun ñu ngi seen ginnaaw

ku nekk yaakaar ni moo gën a bëgg senegal keneen te ñun ñëpp a ko bokk loolu moo waral ñuy def système démocratique mën ngeen bañ a bokk xalaat bokk gis-gis mais senegal ñoo ko bokk suñu république bi ñoo ko bokk ñun ñëpp a ko war a sàmm suñu ay njaboot ñoo ko bokk ku nekk dafa war a sàmm njabootu moromam parce que ku fitnal njabootu keneen sa njaboot du nekk ci jàmm loolu sénégalais yi ñëpp war nañ ko xam ñuy jóg di fitnal njabooti jàmbur yi ñoom xam nañu ni seen njaboot yi mënuñu nekk ci jàmm donc loolu moo waral ñun ñu jóg tey kilifa yi yëpp yu toog fii muy kilifa yu mag ci parti bi kilifa yu mag ci Sénégal yi kilifa yu mag yoo xam ne sax bokkuñu ci benn parti ñi ngi fi toog bokkuñu ci benn mouvance ñu toog fii jóg ñu ne dañuy ñëw pour wax ak sénégalais yi wax sénégalais yi que l'essentiel lu gën a am solo mooy ñu sàmm suñu. lu ñu moom lu ñu bokk sàmm suñu nu ñuy tànnee njiit système démocratique donc loolu moo tax euh, ñun ñu ñëw fii tey di wax ni euh, euh, dialogue politique muy waxtaan diisoo boo xamante ni président de la république bi lancé na ko barki dëmb ci palais de la république ñuy rafetlu ñëpp ñu fa teew euh, dafa nekk sabab boo xamante ni ñëpp mën nañ ci sukkandiku pour waxtaanaat raxas suñu xol yi euh, euh, defaraat suñu taxawaay muy ñëpp ñu nekk ci pouvoir bi ak ñu nekk ci opposition bi ñu xam ni lu ñu boole moo ñu moo gën a ëpp lu ñuy différencier ku nekk si ñun suñu xamal suñu gisante suñu bopp suñu xoolante suñu toogee suñu kër xam nañu ni ñun ak ñoo xam ne bokkuñu gis-gis lu ñu mo moo ëpp lu ñu lu donc lolu, lolu, euh, war na tax da nga xam ne tey suñu pays di day nekk premier producteur day nekk un des plus grands producteurs de pétrole et de gaz maa ngi joxe benn exemple rek ma ne tey Sénégal 30 euh, 000 euh, euh, barils utilisés par jour de pétrole 30 000 barils par jour pour fonctionner le fonctionner courant électricité bi auto yu daw 30 000 barils, par jour utilisés au Sénégal bes bu nek euh barils. la lol la non de pétrole lañuy par jour pétrole boobu yëpp benn jógewu fi benn pepp jógewul Sénégal dañ koy importer ci ay bateau muy ñëw fi donc muy muy defar koom-koom yeneen réew janvier 2024 mille wala février mooy premier jour bu ñuy def pétrole Sénégal bu ñuy premier jugement rek waxuma la yeneen jugement ñeneen ñaari jugement yi def benn premier jugement buy njëkk def pétrole premier jour bi rek cent mille baril lay lay produire par 100 000 baril premier jour.

di taal ay école yoo xam ne ay ndaw foofu lu ñuy amee war a jàngee xam-xam pour ñëw suba toppatoo pétrole boobu xam naka lañ koy saaf dafay ba nga xam ne day développé dëkk donc loolu moo tax ma ne tey ñun ñu jóg tey ñu woote ne tey dañuy waxtaan ak Sénégal waxtaan ak suñu mbokk yi euh, que euh, l'heure comme ni ñu koy waxee l'heure est grave ñu seetaat suñu bopp toog waxtaan lo am solo ci suñu dëkk développement dëkk derrière le président de la république Macky Sall nga xamné mom gis-gisom mandat yu ko suñu borom mëna jox parce que dafa def vision Sénégal émergence 2035 donc koku rawna lo mandat yu ko suñu borom donc ak daloom bu ñu gis si événement yi parce que su ne woon yeneen dëkk événement yi dina demee neneen juróom-ñeenti ñu faatu bëri na gaa mais su ñu amuloon président bu dal yërëm askanam mais di muñ lu leneen moo fi am donc di wax ni suñu amee kooku mu woote mu woote woote jaloom ne lépp loo leen bëgg waxtaanee si réew mi man d'accord naa ñu waxtaan lépp loo leen bëgg waxtaan man d'accord naa ko donc kooku kooku mi ngi nekk déjà si lu ñuy woote ñun république bu ñu wax sauvegarde de la république sauvegarde de l'essentiel donc loolu noonu euh, moo tax ñun tey ñëpp jóg ñu ne sénégalais yi nañu ñëpp xoolaat suñu bopp ñun suñu biir ak parce que di taal këru. jàmbur yi muy ñeneen ñuy muy suñu kër yi ñun euh, man dëmb ñëw nañu sama kër su doon doon euh, sutura suñu borom leneen mën a am mais ñeneen euh, amuñu chance amuñu chance boobu mais ñu nekk si ñun ak ñu nekk si opposition bi ñëpp dañ ko war a condamner parce que loolu xamuñu ko Sénégal suñu amee ay différence d'idée ñun ñoo décider def politique ñun mais nañu ñëw si devant les sénégalais ñu waxante sénégalais sénégalais yi ku mu ku ñu ku ñu àndal ñu ko ñun ñoo choisir est-ce que suñu wa koñ ñoo choisir ñu def politique est-ce que suñu njabot ñoo choisir def politique ñun ñoo choisir donc si on est courageux dañuy dem si fu ñuy demee pôle politique moy waxtaan ak askan bi dem be vote dem voter suñu amé lu ñu am ndam suñu am leen lu ñu ndam ñu tok suñu kenn ñu xamné ñun ñun kii mais duñu ñëwaat utiliser yenen méthode yo xamné méthode de violence la pour jël pouvoir parce que bobu suñ ko commencé maa ngi wax ni dëkk bi dina am nu muy demee wax naa ko fan yi nee naa ko dëkk bi ku foog ne dangay ngay fitnal ay ay nit da ngay nax sa bopp sa bopp ngay nax parce que ku njabootam amul aafiya yow sa njaboot du am aafiya donc moo tax loolu ñun Lolou yalla bokk na bokk na aussi suñu valeur. yi valeur mais kuñu togn nak ñun dal ñi ngi waral tay ni ñu tok fi bëgg waxtaan ak opinion nationale bi di wax décision de justice bi fa fa lay euh, dal euh, dalal na suñu xel ñun convergence des démocrates pour la pour pour la sauvegarde de la république parce que lu muy wone la day wone ni ak gars lu ñuy coow yépp juge bi juge intime conviction moo ko des la moom la am te loolu mooy yara war a ne moo yàgg justice Sénégal man de xam naa ci dara parce que magistrat moo ma yar xam magistrat boobu exercice de ses fonctions ma gis dossier yoo xam ne ma ma naka la ci taxawee ma gis ko mu yar ma ba ba tey nii donc man xam naa justice justice magistrat yooyu juge yooyu ñoo fi nekk bi léegi gëm seen réew gënuñu leen bëgg Sénégal gënuñu leen nekk gor gënuñu leen nekk ay si bëgg ba bëgg suñu réew gënuñu leen euh, ëpp euh, nekk guerrier ay sénégalais lañu comme ñun suñu ay rakk lañu suñu ay nijaay lañu suñu ay mag lañu. pour quoi ñun ñu gën leen bëgg Sénégal wala gën leen bëgg a ëpp fit wala gën leen bëgg ñeme te ñun ñu koy def ñun ñu koy def déedéet ñu wane na que moom selon l'intime conviction lii la daaneel ku ñu daaneel nag ci république da ngay nangu dogal ku ñu da ngay nangu dogalu yàlla nga euh, ñaan loolu mu faaxas nga ñëwaat waxtaan ak sénégalais yi sénégalais yi su ñu la joxatee confiance ñu jox la confiance mais nga doo nangu daan nga ne yow dangay ngay ñëw par la force dem jël pouvoir mais loolu ban réew la am ban réew la am ak koy jiite kan ngay jiite soo jëlee soo demee nga jël euh, xeex ba dem jël pouvoir bi nga ne xeex kenn koy jiite Sénégal en en de du Doudou Ka boo xamante ni euh, Casamance doomu doomu Cabrousse doomu Malem doomu Ka doomu jiite doomu jiite jiite suñu dëkk bi lu am mooy démocrate da ngay dem sandi dangay dem sandi carte peuple yëpp décidé kii moo ñuy jiite ñun yëpp nangu ko lépp jox ko ko ñu nangul ko lépp mais ku ñëw mu ne daf ñuy xoxatal di xeex di comme ça kenn nangul kenn du ko nangul donc loolu laa bëggoon wax ma ne jàmm moo gën ñu toogaat waxtaan te opportunité dialogue bi opportunité la pour ñu indiwaat jàmm ci réew mi indiwaat dal indiwaat waxtaan diisoo ak ñun muñalante ah xool lu ñu bokk pour Sénégal jëm kanam maa ngi leen di gërëm di sant wasalaam.